danu ñëw pour waxtaan dañu ñëw pour que kenn ku nekk comprendre ne rakka topp mag lañu wax doom topp baay xoloo sewunu xeex sewunu dañu ñëw pour waxtaan atte sew ñu tamit mais am na droit nag lii fi xew ne neexunu am nañ ci droit monsieur le maire lii nga expliqué ci ay nopp nga ko def jaraaf lii maire wax daf na yéen jaraaf yi malakutim bi imaam yi dox ngeen waxtaan ak ñoom waaye man dama bëggoon rek pour que nu comprendre ne àdduna kenn du ko yenu dañ ciy dox histoire tolloogu nu fa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 lii ma bëgg mooy télévision yii fi ne gërëm nañ leen ci seen taxawaay dana or gaañee or de ndoy orul de maa wax wax ja leer maa wax lii ma bëgg mooy nanu waxtaan état du Sénégal institution la xam nga lu ma bëgg mu leer ay waxantu bëgg tuma ko fi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 Mola Abdou Mbenga ba sooba yàlla ba nu génnee fii dina dina ko corné corné moo ne piip piip mooy dana nu jël suñuy téléphone yàlla suturaal nañu am nañu am nañu ku nu oo dana la jël waaye tamit message war naa mën a am mu ne président de la république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 ndey di réew yaa ngi toog ñëpp a ngi toog lii lu bëgg moo la xeebunu kenn may nañ waxtaan président de la république soxla nan la yaay président yaay jiit yaa géré tey li ma bëgg mooy xale yi pause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 yàlla mi nga xamante ne dara tewu ko yàlla nu yàlla yónni jàmm lii nga xamante nag moom nañu wax léegi fi ma toog lii ma fi dégg boogo ba léegi moo la jàmm nu bëggoon bu ñu génnee fii képp koo xamante ne gis nga ne man nga noo toogaa noonu ànd nañ si toog waxtaan d'accord nañ si waxtaan parce que ngor waxtaan la ku dégg baatam ngor ay góor lañu ngor moo la gore góor gii nu doon taaw si biir ngor réclamer jàmm mboo nanu may jàmm may nu jàmm moo la gun yi toog leen pause gendarmerie am nañu leen ilif mais nu nit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 bëggunu ko man nan ka waaye bëggunu coow dañu bëgg li nga xamante ne mooy coow li ñu réglé ko suñu mbëkk séeréer yi dañu wax ne bokk ci coow xam li ko waral ko gën dëgg lañu wax ma bëggoon coow li na taxaw histoire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 di leen massawu monsieur le maire imam jaraaf président Fray ak ndaw ñi ñu di leen massawu ay bokk ñëw fekk ci seeni bokk ngir massawu leen ci xew-xew bu regrettable bii ñu sant yàlla bu baax nag bi mu dalee ba ñu mën a ñëw toog ndax la fa xewoon kenn munta toog di waxtaan ci ay lacrymogène kon jàpp nañ ne loolu mën nañ cee sant yàlla bi jataay amee te kanam la jëm incha allahu rabbi ba mu xewee barke démb ci mbooro ak kayaar yàlla dimbali nañu ba bañ fa yeggee lu mel nii la suñuy bokk fa ne ñu yëg si ne leen dañ ñëw massawu leen waaye ñëwuñu pour ñaan leen dañuy ñëw massawu leen ba pare nag taxawu leen taxawu leen mooy xëcc leen ci jàmm taxawu leen mooy ngeen toog waxtaan taxawu leen mooy ñu fexe ba def rapprochement ñi nga xamante ne ñoom la mbir mi impacté donc loolu xewoon mbooro yàlla defal ñu ci sutura ñu gërëm ci bu baax nag njiitu réew mi ak ay ministre am ndax ñooñu ci woo tey nag lii dëgg tey dëgg mooy jamono bi ñu tollu jamono bi ñu toll ñun borom ndom bu tànk yi ñoo gën a jige population yi li nu man tey ñëw di wax keneen manu ko ñun la yàlla dogal noo bokk ak yéen noo leen jige seen identité la bu ngeen ñuy xool dangeen di gis seen bopp bokk na ci li tax ñuy solo ni ñuy solo fierté bi moo tax fierté bi bu ngeen ñuy xool seen xel day dem ci ay mag seen xel day dem ci ay kilifa seen xel day dem ci ay borom ndomb kon loolu moo tax accoutrement bi ñu di ko jëmmal waaye daal ndomb gi it nag bu fekkee sol yére yi rek la takk ndomb gi rek takk yëf yi amut njëriñ dafay war a dox di wax di jëf waaw wax ak xel ak euh, wax ak jëf ak dox xel a koy def xel moomu nag dañ koy weccante moo waral jataay bii pour ñu weccoo xel ku ñu tooñ di sa mbokk di nga ñëw massawu ko waaye danga xool nag solution tey jii bi ñuy ñëw dañu indaale solution ñëw ñu nii pour ñëw dellu bi ñuy ñëw di leen massaw si monsieur le maire ñu ngi lay gërëm ndax it nag balaa ñuy ñëw am nañ information yi diggante démb ak léegi Dawour wax na leen léegi ne bi mbir mi tàkkee ñëw na déglu fi xool Mohamed ñëw fi guddi gi ñoom ñëpp ñu ñëw fi bi ñu xamee lu xew ba trois heures du matin effectivement ñu ngi ñuy rendre compte ngir bu ñu xëyee am na niveau boo xam ne nag ñun ñoo fay yéeg nag ndax njiitu réew mi moo ñu waxal boppam ni na nuy dox ci suñu ay diggante ci ay bokk sunu ndomb gi nañ ci jàppale état parce que état mooy ki nga xamante ne ñun ñoo ko fi teg mu nekkal ñu fi waaye nit nag boo ko tegee mu nekkal la ah yow da ngay fexe na ngeen di wax ba tax na bilaa may ñëw ci subaak léegi wax naa ak gouverneur incha allah diggante mardi mercredi rencontre boobu dana am mooy li ma gouverneur wax rencontre boobu nag buñ fa delloo am naa yaakaar ne lañ fa waxoon mu nga fa tege kon teg lépp taxaw àllarba sorewul ñu dem déglu suñu mbokkit Euh, le colonel Mbeng moom it wax naa ak moom ndax mënuñoo ñëw fii di wax te xamuñu la xew parce que boo xamee la xew ba pare si ngay mën a xam ay solution si ngay mën a def ay tentation pour di waxtaan donc fii ba di waxtaan yi dana continuer moom it fa la ci ñun la bokk comme li ko le maire waxee loolu sax tax ñu wax ak moom li tax ma jël sama téléphone woo ko bu du woon lébu du ma wax ak moom waxuma nag waxu ethnie ethnicien ça c'est ma vision personnel bu fekkonte ne ab du Mbengue du doomu lébu wallahi lazim du ma jël téléphone di wax ak moom lan laay wax ak moom samay bokk ñoo jote moom li mu bokk ci bokk ge tax may wax ak moom mu joxe cër nag wax wax bu leer ma laaj ko solution bokk na ci ay solution yi muy wax toog waxtaan comme mu ngi dans des très bonnes pour waxtaan comme ñoom nekk nañ ci waxtaan ndax it nag mbedd mi lenn rek a ko waral même grève yi ngay dégg ak marche yi ngay dégg yëpp ñàkk toog ci taabal rek la mais ay nit bu ñu toogee ci taabal waxtaan mbedd mi dootu am place et je pense que dëkk bi ak fi réew mi toll ku am tuuti xam-xam xam ne réew mi dafa nekk dans l'incertitude le pays est dans l'incertitude waaye ñun lébu yi incha allahu rabbi du benn dëkku lébu boo xam ne tey li li li li liy taal dëkk bi wala luy jaxase dëkk bi du joge ci ñun suñuy donnuñu ko te su te suñu ñaani maam nag mu ngi fi nag li suñuy maam ñaanoon mu ngi fi nag donnuñu loolu doon li ñu doon mooy xajal waaye nag xajal bi tamit nag nu ngay bëgg a xat nag <laughs> xajal bi nu ngay bëgg a xat nag parce que bu ndawee ba suñuy nekk xajatuñu si nuy doom kii day tëdd guddi kii tëdd bëccëg mais amuñu paas ba noo dem la jàngi ji feneen on n'a pas ce budget on n'a pas ces moyens ay pêcheurs la ñu géej gi dara nekkatu ci fi nga jëlew jën amula essence am ça c'est un problème waa fekk dana am problème si géej gi am problème si jéeri ji waa fan jëm te noonu amunu feneen mën noo dem feneen nun mën noo dem feneen ah? feneen waaw ba nee ba am problème ab armeel nuy niw ñaa tegle aba ñaay nan noppi ba noppee danoo mooy yàlla wallaay ba nu noppee danoo mooy yàlla dañ bëgg nag nu waxtaan ñu xam lan mooy sunuy problème waa gendarmerie la ñu wax gendarmerie bi mu génnee noo ko dabu ji waa ki nga dabu ji kay kon bëgg nga ka xëcce mu ñëw ngeen ngeen bokk nekk waaye sa biir kër yow boo jëlee nit naka kaay ndax noo bokk kër gi waaye li lépp cër moo la balaa gas wax la waaye ba xëy fekk kër gi doone pax dinaa ko ne sa waay laa la gas laa la gas nga dóor ma lacrymogène jaaduwul bu nu dëgg nag ba pare li des nag mooy nun dañu tàllal loxo waxtaan waxtaan woowu moo nu indi et demandé nag waa Ngor yëpp nu ñu nuñ mbokk yëpp ndax man mi la wax ak yéen sëtëb bàccooy la ma ah. sëtëb bàccooy sàmba la ma man mi la wax ak kenn gënu ma dëkk ngor man dama dëkk fépp kon nag dama ni nit bañ laalee deretam dala yëngatu danañ dem si taabal ji nu teg sunuy problème lan la nu xool priorité yi lan la waa Ngor amuñu moyen bañaa génn fii la dem la jàngi ji bureau passeport amul fii loolu yëpp ay problème la yoo xam ne dinañ ko porté posé ko waaye loolu si fan la mën a nekk si dal si jàmm ak si toogaay comme ñoom nee na bëgg na yaa toog gouverneur nu kaa gërëm nag sant ka parce que ab yëg-yëg la am ci noonu xam nga nit reconnaissance yàlla subhanahu wa taala alhamdulilah la mu kaa jariñ bandaa alhamdulilah nu ñàkk wax lan laa war jariñ yàlla mais mu ne sant ma ma doole la kon kay yàlla moom bëgg na ko ko sant waa kon doomu aadama bëgg na ko reconnaître ay defam kon jàpp naa ne mbir mi problème mu mal malentendu la mais mal malentendu la mais la vérité mooy c'est une malentendu boo xam ne ki war a def waxul ak ki mu war a waxal loolu rek moo causé malentendu bi waaw nit dinaa mbaj bàyyi mu taxaw di la seetaan fa mu am ilimaan ñëw taxaw borom ndomb tànk ñëw taxaw mais maire dëkk bi ñëw taxaw la wax ak yéen si jàmm nga dóor ko làkk ma ne tanaa toog leen na jàmmaam na jàmm may jàmm dañ kaa yóotu ah. jàmm yi ndaka dox wax ba xaw naa dëgër mais ña xam ne nag ña comprendre ne dañ ñëw si sunu ay mbokk yoo xam ne day nekk siw naqar aw naqar du dëj rek ça c'est ay frustration la kenn xamul lii naka la tudde ab na gis nga ab lébu kenn masula nun bañ nan ka ab nun buur buur ba ndakaaru amul leen fekk buur bi ngor nun kenn ma soo dàqanuy maam jaay ña nun ay gor lanu duñu ay jaam ñun ku bëgg a nekk ak nun danga nuy traité traitement bu bu normal lañ soxla faut que les gens nous traitent traitement bu bu honorable ñaar rek a fi ne ña traité nu bu honorable avec beaucoup de respect wala ña rey nu nu dee dem àjjana nous sommes des lébous et finalement on dañu comprendre tul finalement comprendre tuñu mais sëñ Babacar si sama sëriñ radiallahu taala day wax ne am ko te xamuloo ko ñàkk ko te xam ko di ko wuti sax ko gën gi nga bi nu àndee nekk bu ànd nekk bennax léegi bi nu àndee nekk bennax léegi mu nekk force boo xam ne tey jii fu nu dem bu nu waxee ñu déglu nu parce que nag la vérité c'est quoi les politiques sont dañu échec kan ban politique mooy wax ak yéen ngeen dëgg liñ toog di wax ak yéen ba doon a politicien dem ngeen seen yoon duñ leen déglu c'est ça amatuñu luñ leen di déglu parce que lu bari lu yàqu loolu moo ko yàq yàq suñu ay diggante créer ay conflits créer lu ne ñu créer ko maintenant jamono indi na nag affaire bi nag yéex na. ñun borom bi tànk yi nga xam ne nu ngi dëkk fii ci dëkk bi porté nañu affaire bi heureusement Dieu merci bi nga xamee ne kii njiitu réew mi mu ngi ñuy jox nopp bërki démb ba mu ñëwee Tëngéej image yaa ngi fi ba mu waxee ne moom jaraaf la ca Fuuta kon président Macky Sall nee na jaraaf la sa Fuuta kon kooku xam na ko tim wax na ko yow danañu profité ci yéen ñi wax ne nun nu ngi waajal dem seeti président Macky comme moom jaraaf la sa fuuta bu nëkkee fii ci sunu biir dinañ ko solo mantab jaraaf ab gan ndax loolu lan doon na nun lin doon na nun mooy dalal lin doon na mooy yaatal lin doon na mooy dëkkal bokk comme moom nee na jaraaf la sa fuuta dinañ ko yóbbul manto bi nga xam ne moo la jaraafi gan gi président Macky Sall tey mooy jaraafi gan gi donc ñaw nañu manto bi donc loolu yëpp xam ngeen lan la jàmmoo pour wane ne ñun ay nit yi jàmm lañu waaye bu na amoon Serigne Babacar si sa Tiwaawan am Seydil Hadj Malick sa Tiwaawan sunu maam mii si jàmmalaay fii di maama maire bi toog xam ne moo randal géej amul benn weerante dama doon wax benn ay nag kaay dama woon la fi sama maam randal géej ku ne mën ngaa wax si waaye dama ne fii si jàmmalaay ba nu yeggee léegi moom la fi sama maam randal géej gi te du fa te du si jaaraat kon nun ay wàlliwu ngi sunu biir beneen bi si des nag xoo xalaatew nu nappaatew nu ka yaakaar ne dangaa ñëw si sunu gent léegi dañu àndul woon rek moo tax li daan am daam mais bi nu àndee léegi dama ne xuuxalu nu kenn napp nu kenn wax ju leer la ñuy wax la waaye bëgg def si sunu biir te àndu nu si demal ba xam ne dina sotteem déet wallahi am na lan doon na nañu dem kenn dootul nangu ko noo siif c'est fini ça ah dina dóore lacrymogène pourquoi à quel titre pour lan noo rey mais nun doon nu njaam kenn du nu yeew c'est quoi ces histoires là faut qu'on arrête wax bi xaw na diis ngeen baal ñu dafa am lu maire mënta wax man waxi coutume laay wax waxuma wax bu solennel ñun li nu doon noonu la ñuy waxee avec les formes et les gestes ak lépp boo gisee nag ma xaw a guddal dama bëgg a jaraaf ñaari baat laa wax jaraaf moo jiite délégation bi dañu koy waxal moo dama ma ju gudd moom dañ koy résumé parce que fi ma daa toll si ñun sax kanal ka ndax daa am fan jëm te man dama engagé wu man dama engagé wu ànd ak moom pour nu saxal lébu gi bu nu paree tournée yi ñu war a def sur les 121 villages lébu incha allahu rabbi danañu ko def danañu ko dox nu ko wax salaamaaleykum wa rahmatullah di leen baal àq si koor gi ñaan sunu boroom lépp laa xam ne jaamu nañ si yàlla na ko yàlla nangul xam ne weeru alxuraan la ñaan si barkeb alxuraan yàlla na yàlla seddal mbir yëpp te doolu jàmm si dëkk bi ak si réew mi ah sant nañ leen ba baax ma revenir at defe naa kilifa yi jaar nañ ci si taxawaay bi depuis démb ndaxu askan lii laa jariñ ni ko sëñ Habib waxee loolu moo am ñun ñoo la yéen yéen la ñun yéen ñu ilif yéen ñu jur sag njaboot nag baa déggee lenn si ñoom fitna nga jóg dem nemmeeku leen dañ naan la sant nañ leen bu baax gërëm nañ leen bu baax ndax nit amul la ëpp mbokkam ñun amuñu la leen ëpp mënuñu leen a génn si benn fànn gis nañu taxawaay bi bëgg nañ si ah li xew nag démb revenir nañ ci si presse bi dinañ si revenir at fàttali nit ñi ne leen askanu lébu république bi ñoo wax tey si askanu lébu nañ ko copier donc ba dee république ka gën a doon lébu bi ab république amul si lañ juddoo si lañ màggee si lañ yaroo la wax ne bi fi tubaab bi nekkee ñuy maam lañ fi nekkoon ak tubaab bi nekk citoyen ay citoyen lañ woon de plein exercice ba tax na ñun dañ juddoo ci république màgg ci doon nag ñuy wëjur di si dox di sa wax kon duñ def la xëtt république te duñ def itam lal yàq image république lépp lañoo ñoo def dinañ ko teg ci dëgg si fulla fayda waaye si laa xam ne nag la loi nangu la ak la am xel rek nangu li fi xew wala le premier mars gendarmerie ñoom ñoo décidé ñoom ñoo jël seen décision ne dañoo jóge Ngor dellu Wakaam parce que fi ñu nekk dala inondé wax ñu nag nañu ba fekkee am neen feneen fenn ñu jox ñun ñu tabax la ko ñu bopp waaye fii mënatuñu fa nekk dañoo dem donte niñ ko defee neexuñu ndax mënoon nañoo dafa courrier bind fii ñu nekk centre culturel la maire Ngor moo décidé woon jox leen foofu pour ñu am poste ñu nekk fii la toll fukki at inondation bi ñoo wax ren fii daa inondé foofu inondé ñun avant ñu lijjanti fii foofu lañ jiitu ànd ndax ñoom ndax ka la yor si sécurité ndax war a nekk si condition yenn yi seen oto bi mu inondé fey ñun ñoo jël oto yi maire bi malgré ne bëriwuñu ay véhicule dañ jël benn oto bi déjee leen ko ñoom pour que ñu mën a def seeni i service ak risques yi mu comporté ndax nit mën naa gis oto yi nekk saay-saay ñoom ñu yor benn heure bi mu ne oto bi ak waa mairie nangam ak nangam violenté ñu ne yeneen ñi yor oto yi ñu fa jógee ñu bàyyi leen ak oto di leen jox carburant pour que ñu mën a def seen liggéey biñ jógee pour dem donte waxuñu ñu dara ñun nañ rek ñu si guddi gi la ñu ki fi nekkoon par courtoisie nañu ah ñun kat war nañoo dem suba rafetul waaye dañ jàppe ne ñun la suñu biir république la amaana njuumte la waaye baax na garaaw ñu xëy waxtaan suñu biir ne dëkk bi mënoo ñàkk gendarmerie mënoo ñàkk police parce que li fi am insécurité bi bëri na ñu ne nañ seet nañ mën a def daar daar dem toog ak ñoom ndax lii mënoo nekk yàlla def le 2 mars ñu dem gise ji à le général Moussa Fall ànd Abdou Mbengue fa lañ ko fekk keroog ñu dem mairie bi ànd ak imam yi représentant euh, jaraaf yi ak ñi nga xam ne ñoo dëkk ci quartier bi xam ne ñoom ñoo les premiers impactés bi ñu demee général Moussa Fall nañu lenn mën na ma leen kaa garanti gendarmerie bi donte dem na dinañ fexe yokk ko patrouille bi pour assurer sécurité bi de manière provisoire nag comme bëgg neen am fa laa xam ne dina jëmmal ne sécurité am na fa ba tey dinañ fa def ab brigade provisoire baa xam ne ay conteneur laa doon ndax def nañ modèle ba mel noonu Kër Massar suba dinañ fa yónni benn camion baa xam ne dina nekk foofu pour mën a permettre ñi la def patrouille ba ñu soxlawee seen bopp ñu ñëw foofu mën a aajatu waaye itam li nga xam ne ay papier la légalisation xam ne gendarmerie kaa def du jor ngeen a dem ba wakam ngeen defee ko foofu ñu wax si ba tënk mun nañu dinañ andi conteneur seet leen faa xam ne mën neen ko faa teg Abdou Mbengue colonel Abdou nga nekk gis nañ parking bi loolu dinañ si ñëwaat mën nañ ko faa tegandi bi ñu ñëwee si ngoon gi bi ñu fa jógee ñu joxante rendez-vous ne bon 4 parce que boobu bëgg nañ daar daar gendarmerie dellu si ñu ne leen bon ngeen ñëw ngoon ñu identifier site bi ngeen wax faa xam ne mën nañ faa teg conteneur 4 heures ñu daje ñun ñëpp ñi demoon si ndaje mi ñëpp dajawaat fi mhm. imam bi jaraaf bi frais yi ak représentant ak ñi newoon si quartier bi Abdou nga ñëw àndaax ñi xam ne lieutenant yi nga xam ne ñoom ñoo ak euh, euh, gradé yi nga xam ne ñoom ñoo lépp la jëm si construction armée ak gendarmerie ñu xool ne parking bi fii lañ bëgg mën nañ ko fee tegandi. ñu wax si ba tënk ma la préciser une chose bi ñëw xëy la dem seeti ji le le général Moussa ñoom si seen demande dañ foog ni ngoro moom fii ñun itam dañ jàpp ne ngoro moom fii parce que général Moussa Fall li mu la wax moo la may leen ñu fa Abdou Mbengue bi mu doon ñëw moo la may leen ñu 500 mètres carrés ñu tabaxal ñu bopp. ma ne ko Abdou amuñu 500 mètres carrés ñu joxe bëgg nañu gendarmerie loolu nag waaye fi ngeen nekkoon matul sax 200 mètres carrés identifié nañu ay site nag. gis nañ bi nekk si biti benn génnee gendarmerie bi li fa nekk ëpp na 300 mètres carrés mën nañ see délibéré tout de suite benn bëggee parce que loolu maire bi si alali maire bi la mën nañ see délibéré conseil bi jox leen ngeen tabax ndax brigade mënu fa ñàkk. garage si biir dëkk bi la mën nañoo woote conseil ñu délibéré si. fii ngeen wax si parking bi seen bëgg-bëgg la dinañ leen ko nangul ñu noté ko neew ñu dañ leen kaa jote waaye dinañ ko noté pour génn fa 300 mètres carrés virage après gondolier fi man Mansour si doon nekk yàlla na yàlla yokk leeram espace boobu mu ngi si kaw tali bi jigéen na aéroport nañ ko noté am na terrain ba nekk fii ñu tuddee ko terrain ay Aïda Seck mu amoon litige entre kooku ak commune bi te dernière information yi ci am moo la kooku ñàkk na foofu loolu dara dellu si si commune bi ñu ne ko foofu itam xelaat nañ ne war nañ ko faa mën a def am benn terrain bañ tuddee terrain Delphine Ndiaye ndax li ñu amoon si information moo la terrain boobu maire bi fi jiitu woon da ko joxoon gendarmerie pour ab brigade ñu ne ko nag terrain yi nga xam ne mu ngi si biir dëkk bi ñun mën nañ see délibéré yi na si biti ñun amaguñu si këyit nga ñu wax lii situation bi lan la ndax bi ñu toogee daaw ba ren Alaaji Ablaye moo la président commission urbanisme li mu njëkk a moo la bind courrier service compétent yi ne leen dañ bëgg ngeen wax ñu ngeen jox ñu plan de masse actualiser commune bi yépp ñu xam lan la état moom xam lan la privé moom xam lan moo si doon équipement yi pour que demande bañ laa autorisé ñu mën a am base légal bu wóor mën laa autoriser daaw ba ren amuñu sax accusé de réception ñu fa demee toogaa ñoom wax nañ leen que bi ñu leen ko waxee dañ kaa gàngandoo kii naan du kii kii la kii kële la léeg-léeg ba nit occupé faa xam ne waru faa nekk ñu bind descos bi si mujjee amuñu sax allo kaay leen te ñu déglu leen ñu ne nag comme lii urgence dañ bëgg yéen service état yi ngeen xool identifier sites ngeen utal ñu information bi ndax mën neen ko am dans la journée wala ma neen ko am très rapidement parce que ñun ñu ngay bind kenn faalewu ñu xanaa yéen bokk benn bindee dinañ leen tontu ngeen andi information bi ñu toog ñu seet si sites yi yëpp fan la si waa Ngor la décidé jox ko gendarmerie loolu la 2 mars la le 6 mars gouverneur wooñu nañu daal bëgg réunion entre waa Ngor ak service compétent ndax jot na gendarmerie requête bi ñu def pour bëgg ab brigade ñu fekk ka fa ni ko waxee ak service urbanisme a ngi fa woon waa cadastre a ngi fa woon euh, waa Ageroute ñu ngi fa woon li tax Ageroute nekk fa ak Descos li tax Ageroute nekk fa moo la parking bi jamonoy ANOCI bi bi ñoo dañ bi ñoo yokk tali bi di ko yaatal dañ élever côté yi ba oto mën see gaare pour nag ñi la liggéey su côté yi ak ñi fa dëkk am fañ gaare moo taxoon ñu jël parking bi def ko parking baa xam ne pour ñëpp la ñu mën faa gaare moo taxoon ñu woowaa waa ndax ñun ba tey ba fa yenn mbiri amee dañoo woo AJUR ñoom ñu ngi foon ñun ñu dem fa ànd ak maire bi ah jaraaf ah imam te li fa yóbbu ancien maire bi moo la mu wax ci kanam gouverneur terrain bi ñoo wax terrain Delphine Ndiaye lan moo la historique bi terrain bi nekk conflit entre Aïda Seck ak maire bi lan moo la historique bi ah lan moo si mujj bi ñu si waxtaanee ñun ñëpp colonel Abdou Meng wax ne moom parking bi la bëgg parce que bi mu seetloo def recherche documentaire daa gis ne parking bi ngor moomu ka parking bi état moo ko moom comme dama leen doon ñaan nag ma ñaan leen 500 ngeen ma amu leen 500 300 leen maa may damaa jël lépp parce que état ko moom. bi ma ko waxee ma ne que état gënu la ñu see yàlla yow maire yi commune moo la démembrement état beneen bi si de citoyen sénégalais ba nekk am naa droit fekk li état moom nga demandé ko ñu def enquête def kii ba ma ne nekk ñu def ko sa jox la donc li nga wax loolu teguwul fenn. man naa la bëgg nag ne bëgg nañ fa brigade sur le plan stratégique ndax amuñu si xam-xam ñun yéen yéen a xam amaana moo gën loolu sañ leen dama bëgg moom ka sañ naa ko waaye ñun itam dañu bëgg parce que ngor nag ay léewen sonn nañ demande nañ ci aéroport bi ma la nuyu collectif ngor yoo fokaam bi ñu ngi fi demandé nañ aéroport bi bi ma amee chance toog ak kilifa gi le président la république ñu rappelé que ne ñu ngee demandé ndax ngor nag ñu ngi si 10 mil habitants au kilomètre carré 10 000 habitants au kilomètre carré pour nga xam ko moo la 10 habitants au mètre carré fukki nit nga dajale leen si mètre carré foofu la densité bi village traditionnel bi toll. loolu bombe à retardement la risque la barki démb benn kër moo panta nar a daanu kenn nelawul ngor yàllaa si def sutura kenn nelawul te bari na fi yemel noonu ñu war a jël situation yi noonu yaatal ñu toog ak kilifa gi wax ko mun nañu li ngeen wax dëgg la waaye espace ba ñu joxetee amatu fa dëgg yàlla. waaye nag lycée bi ngeen ma demandé man de joxoon na ma exclusion pour ab lycée Ngor ma ne ko Ngor amul ab lycée mun ne ma si Ngor am na ab lycée ma ne ko Ngor amul ab lycée ñun sax dañ gêné wu ñun dañu gêné wu trop parce que kilifa kenn du ko kenn du ko mettre si situation yenn yi dañ si gêné wu trop ñu waxtaan si mu nañu baax na si mu yónni fi ndawam mu andi ay këyit ñaari këyit ni ko Alaaji waxee lycée bi c'était prévu pour 5000 mètres carrés lycée de Ngor bi mu defee enquête bi ñu ñoo andi 2000 mètres carrés sa des te du ma dugg si détail yenn mu jox ñu ñaari këyit benn ba 2200 mètres carrés ak ba 1800 mètres carrés këyit genn gi hangar pèlerin la commune de Yoff la beneen bi Wakaam la nekk kilifa gi ko andi ma ne ko ñun commune lycée Ngor la ñoo laaj comment ça fait Ngor war a amub lycée di ko tabax Yoff wala di ko tabax Wakaam baa bëggee ndox sax daal demandé loolu du du du noonu nañu joxob lycée mën ñu baax na dina si waxtaan ñu wax gouverneur keroog nekk parking bii ay li jëwén yéen nañu def fii lycée nag bëgg nañ ñu waa dëkk ñu jox leen chance yi waa réew mi yëpp am ñu jàng normalement dox xëy dox jàngi wàcc añi wa ngoontu dem jàngi wàcc toog lu sañ nañ ko ay sénégalais lañ Ngor moo nekk la seule commune dans le département de amuñ amuñu sax ab CM amuñu sax ab CM encore mooy la mobilisé Ngor ñuy armée dax fees jamono ji nii pour nga rob daxal dajale ay yeex pour rob ak nit ñu ngay def extension si biir aéroport bi ce qui veut dire que population bi ça va doubler d'ici cinq dix ans wala mu tripler sax est-ce que zone ba toll noonu waajul ñu def ab ay ay cimetière communal Ngor amul dara maire bi dala inondé te dëkk bi daxa màgg jëm boor bële ñu ne yella na ñu jël maire bi bâtiment bi génn ko def ko ci croisement bi waa Ngor xam ne fii seen a maire la ka dëkk alma di xam ne fii sa maire la ka dëkk Casino xam ne mu nekk si digg bi ndax maire bi ñëpp la ëmb lii Pape Diop a fi tabaxoon yàgg na bi mu kaa tabax fii daawul inondé boobu extension bi ñëwagul tey mu ngay inondé doo liggéey yooyu yëpp daje ak yeneen i mbir ak li ñoo laaj kenn duñu ko jox ñu ne gouverneur ndigim gendarmerie moo ko bëgg ngir sécurité rek ñun dañ ko bëgg pour survie lii ñu lii ab survie la du sax question sécurité kalaa ngaa sécurité dal fekk mu dund la lii lii am ngor bañ si utul pexe bombe à retardement la population bi dina yokku yéen ñi nekk yaakaar ne yéen nekk sécurité nekk almadi ab ghetto laa doon nekk favela ñu dugg biir Almadi ndax insécurité commencé na ngor mosu la am nit fi naan nelaw yeewu keneen ñëw tëdd mosu fee am léegi commencé na fa am ndax ab xataay waaye loolu lépp nag bi moo am ñu ngi ànd ak dignité ak respect chaque jour ba dañoo laaj dañ kaa laaj si njëkk ak teraanga man maa nekkoon chargé de com collectif ba ngor bi nekk maire moo tax ma génn pour ñeneen man a toog ndax ñun ñëpp benn lañ El Hadj Ablaye mii moo nekkoon porte parole à chaque fois bañ daan dee demande malgré naqar yëpp dañ kaa teg si yoon ñu wax si gouverneur mu sensible si trop nañu nag ay la yoween li la am am na ba pare liñ mën a def moo la dinañ mettre en place ak commission baa xam ne sous préfet Almadies moo kaa jiite mu def inventaire si commune bi yëpp lan la fi état moom bañ defee inventaire bi ba pare ñu ootewaat ñi fi toog ñëpp ñu daje ñu xool lan la état la jox gendarmerie lan la état la jox commune de Ngor ñu ne ko ba tey baax na ndax loolu dina permettre commune bi am patrimoine ni ko El ji waxee. ndax bi fi ñoo waxee nii commune de Ngor amul benn patrimoine dara mun nañu loolu dinañ ko def ngir commune de am patrimoine ngeen xam lan moo fi doon équipement lan moo fi doon nangam lan moo fi doon nangam li si des ngeen uti seeni i seet nan leen sa mën a créer valeur. le 6 mars la woon ñu ne ko bon baax na ñu ngay déglu à notre grande surprise barki démb dimanche administration dimanche. ñu ne ñu gendarmerie mu fa la sotti béton ak ciment ak fer man maa ngi woon Almadies keneen ak woon feneen dañ ñu oo téléphone. bi ma ñëwee fekk fa gendarmerie ma laaj leen kan moo fa sutti lii ñu ne ñoom man leen lan moo tax ngeen sutti ko fi ñu ne ñu dañ jox ordre pour ñu sutti ko fi. fa lañ ma ne mënuñu laa joxe détail man leen waaye loolu baax na amaa bon dinañ ñu woo bon ma woo jaraaf jaraaf yëgul imaam yëgul kenn lan di matin ñu xëy andi pokole commencé gas. ba tey man yëguma imaam bi yëgul jaraaf yëgul kenn yëgul l'après-midi guddi sax vers 23h lañ ma woon ne ma ñu ngi wàcceel brique 23h ma ne leen nag administration dimanche 23h ba yàggee nit ñi ki xamul am xelam mën naa dem si la ne. administration noonu administration daa war a nekk droite dans ses bottes li moo def dala leer bëccëg laa doon malgré tout ça ñu ne terewul. kii moo yor service urbanisme la liggéey xanaa dina am autorisation dina def sub demande ñu vérifier li ngaa laaj ndax yaa ko moom wala moom la ko c'est un minimum mu dem demande leen moom mooy service technique ñu nekk si commune am c'est minimum mu dem laaj leen est-ce que am leen autorisation de construire est-ce que am neen këyit ga wane ne moom fii ñu ne ko jóge fi ñun ñu dem àndax jaraaf jóge fi jóge fi génnal si biti loo boobu am na ba ko gën a garaaw ñu dem ànd jaraaf ak imam xëy dem ne leen ñun dañ bëgg a xam li fi xew lan la bëgguñoo dox si rumeur ni ko Mamadou Ndiaye waxee waa dëkk bi ñu ñëw tuumaal la ne waaye nag ka jiitu yaa jiitu rek man naa la njaboot gi loolu moom dara new si wax dëgg yàlla ñun amuñu si dara lañoo ñoo metti ndax ba ñoo def moom ak dëgg rek la def bañ tëddee dañoo nelaw waaye nag sañ nañ ñoom itam gis mbir xamuñu ñu wax léeg-léeg mbooloo mi njaboot gi dinaa gis kaa xam ne moom dina wax la ka neex dañ bëgg ngeen wax ñu lii lan la lan moo xew kilifa gi nañu génn leen terrain bi ma ne ko ban terrain mu ne terrain bi ma ne ko man maa la maire Ngor ba doon génne la am man maa la génne waate ci périmètre communal bi man maa ngi wàcc par yi ñëw ci yow andax jaraaf bi borom dëkk bi imam bi ñun ñoo wàcc ñëw si yow pas le contraire nuyu la présenté wu laaj la ci njëkk ak teraanga li xew dama dalal sa kàddu jekkul rafetul ñun si jàmm lañoo ñoo dox ndax njaboot gi mer nañ te ñu ngi ñëw déglu boobu ba léegi biñ leen waxee jóge nañ si gouverneur vraiment ñu gërëm ku ñuy ngor ba baax biñ déggee mbir mi jóge nañ si gouverneur ñu defal leen point kenn déggul ku ñuy ngor ba génn dañ ne comme ñu ngi saa wax ñoom nañ toog déglu ma ne que ñii nag dañ bëgg a xam mu teg si na gu ñuy génn fii ma door a wax a yéen ak ay vraiment ay mbir yi xaw a doy waar heurte ñu tirer lacrymogène boobu ñu ngi wet gële bi ñu commencé tirer la ko suñu mën leen hey fii aw yoon sax dafay amul fag nit mën a jàlle kii mag la fii dañ ko gas ñu tiire si ma kaw tiire si jaraf yi lacrymogène imaam yi xale yi nag bañ ko gisee loolu ba xale yi gisee loolu jóg sànniw xeer wala def leneen loolu kenn santu ko kenn waaye nit ka nekk nag sa kilifa laa am ka ne sa kilifa laa am ñoom ni ñu mën a taxawoo seen kilifa wax dëgg yàlla kenn mënoo mere gune yi nag si taxaw seen kilifa amaana amin bi gën ni mu demee gënalul kenn ñu di si masawu ñëpp di si masawu xale yi nga xam ne gaañoo nañ si si masawu itam gendarme yi nga xam ne gaañoo nañ si ndax ñu ñëpp Sénégal lañ te lépp Ndakaaru la xewi li si métti nag moo la liggéey bi kenn yëgul na mu demee ba tey fi ñoo wax ak yéen nii amul kenn ka xam lan la defee kenn li ñu waxoon moo la ab brigade provisoire ba ñu teg ci parking bi ay conteneurs dañ koy yëkki teg. Hmm. en attendant gouverneur oote waat ne sit bi lañ jox gendarmerie ñoom ñu door a dem tabaxal seen boppa sur fond propre loolu général boobu. Hmm. li ci des mu jox ko ngor. loolu lañ fa tënk bi ñu faa jóge ñu xëy gis fi ciment gis béton gis fer gis ay briques te gisuñu conteneur guni sañ na ñëw tiit nag. Hmm. ndax fii ñun am nañ fa besoin nag ñuy doom dañu war a jàngi de. ñuy doom dañu war a jàngi. duñ leen xañ ab lycée duñ leen xañ xam-xam dañ war a jàngi maire bii dax war génn fii dañ am soxla ga ëpp soxla gendarmerie bëgg nañ sécurité nag ndax ñoom bi ñu demee ñun ñoo génn seeti leen c'est pas le contraire kon ñun wane nañ ñu ñu ñu bëgg volonté nit ñaa ngi véhiculer ne waa Ngor ñoo bëgg la brigade déedéet bëgg nañ ab brigade gendarmerie wala police ñun bëgg nañ loolu ñun ñoo jógoon dem fekki leen ñoom ñoo jël seen i bagage dem ñun ñu jël dem fekki leen parce que boobu waa Ngor ñu ngi naan gendarmerie foog mu am te ñun nag dañ fi toogal waa Ngor wala police ñu ah, wala police parce que police sax nag gënoon a yella fii police moo gën a yella si commune bi ndax Ngor moo la commune bi ëpp ay expatrié te loolu police des étrangers moo ko mën a gérer gendarmerie du ko gérer ay yéen mm-hmm. Ngor moo la première destination touristique de Dakar man ministère du tourisme la ma nekk ministère bi sax far ñëw na almadi léegi restaurant yi ak bois de nuit ñu ngi fii kon police touristique ak brigade des mœurs ñu nekk Ngor moo gën a yella ka xam Ngor 4 heures embouteillage yi ba 19 heures doo dem kon tey ñu am fi compagnie routière ba police moo gën a yella mais malgré tout ça par courtoisie par respect bi gendarmerie nee dañ bëgg rek neewuñu leen yéen doo leen jóge leen fi dañoo seeti police dañu leen sañ leen bëgg rek passeport carte d'identité ka dëkk Ngor tey pour nga am ka parcelle laa jëm def nañ ay morcellement ci aéroport bi ce qui population bi dana doublé est-ce que mën nañoo continuer que bëgg a dëkk Ngor soxla carte d'identité daal dem ba parcelle est-ce que yellul police am fii ka bëgg doxee ko fii moo gën a yàlla gendarmerie ba dee dañu bëgg sécuriser du ñun lañ bëgg a sécuriser ñun ñun ñoo bëgg a sécurité ba dee ki nga war a sécuriser laa la dóori bal ndax di nga lacrymogène ça pose problème am nañ respect bu baax ci institution bi ci taxawaay ndax nous sommes très républicains ah ki fa nekk jiite légion Dakar bi abdu Mbengue ñu mbokk la te wax na ma ko ko démb nee na ma ko ñun ñii jaamaarloo ñaa jiite yaa ilif yow neexuñu bañ sañoon tey fi ñoo dégg kilifa yi gendarmerie yi fa lañ laa dégg ndax ñëpp sag la wér nañu wóor ne li ngaa def nii la jël sa njaboot daan leen dem leen dóor ña leen neexu la parce que ba ngoonee baa summee tën yëpp lébu laal ñu la dóor sa njaboot du la neex donte nag liggéey bi liggéey bi la daa nekk service commandé lii nag moo waral mbir mi jaraaf def nañ tàggoo mu niroog forcing te ñun nag dañu ne si état la ñu ne ba gouverneur oote ne inventaire baa ngi nii lii moo fi ne état jël na décision bii ñu xam ne bu boobaa état moo jël ab décision na communiqué jaaral nga fi moo ko war a jaaral nit ñi xam ne état jël li ab décision nag ça s'apprécie de diverses manières ka mu neex nga d'accord si nga bañ saa d'accord nga gise ka nii gise ka naa loolu yow la mais état jël na décision su sous-tendre ak këyit parce que état administration c'est les créé këyit la ab décret mu ngi fi est-ce que am na beneen ab décret ba annulé boobu ba tey gisuñu lii gendarmerie normalement li mu def nii warulaa ñëw ab décret mu ngi fi pour une chose ñun sañu ñu faa def leneen par respect pour ce décret tey projet mairie bi baa fa am yóbbu fa la dul la parking dañu laan déedéet parce que décret boobu mu ngi fi ba tey mën naa la jël teg fa ay nit ñaa xam ne c'est précaire et révocable moo tax li ngeen fa gis yëpp ay mbir la yoo xam ne mën nañ kaa teg yóbbu ñoom itam bi ñoo wax ñun loolu lañu prévaroon ndax xam nañ loolu pour teg ka fa bañ paree ñu teggi ko yóbbu waaye liñ gis uute na wax dëgg yàlla ah li ñu waxoon ay conteneur lañu waxoon gisuñu fa benn xottu conteneur ah nit ñi rek jóg nañ ñu lañ ñaan ñëpp nag ñu dellu si à la raison ñun Dakar lañu am mm-hmm. fii la ñu am jàmm lañ ñu mas a xamee si jàmm jooju rek lañoo ñoo ñu la woowaat kilifa yi gendarmerie kilifa yi réew mi si procédure bi nga ko xam ne moom lañ commencé woon mu doon waxtaan mu doonoon la rafet ñu ñaanaat leen ñu ñëwaat si loolu wala profité di ko seede seen kanam démb bi mu demee ba mbir mi jaxasoo gouverneur bi ma ko woowee ndax teel na mu kaa wax nekk mbir yii lii ma gis man yëgu ma keneen yëgul keneen yëgul hmm. nit ñi dinañ jóg fa yegg seen bopp ba dee daa évoluer même ba fekkee daa évoluer si diggante bi woo leen nit ñi ne leen évoluer na parce que biñ tënkee imam bi loolu judi la woon biñ tënkee si ëllëg si imam bi daa dem si jàkka ji ba si ñëpp di ko déglu jaraaf bi wax a waagoor ñu di ko dégg kilifa nag doo ko du ñëw óolu la si say wax jël wax jooju jotali kaw askanam nga xëy def leneen ba boogaa kilifa gi laa la mettre mal à l'aise ak njabootam ba fekkee daa évoluer ngeen wax ni daa évoluer ba fekkee évoluer wul aussi li fa am di bokkul ak ñu waxoon mu ne baax na si bëccëg gi mu woo le colonel mu delloo tropi bi ñu wax waa Ngor itam ñu dem taxaw ñu arrêté travaux yi jàmm am ndax nag dañ jàpp ni lii moo indi fitna ji dem ba bi biñ ko arrêté gis nañ jàmm ji si topp kon tey ba fekkee dañ tàmbaliwaat ab liggéey wax dëgg yàlla mën naa jur la ne wax na ma gouverneur dem ba su guddi bi amee ko mu yónnee ay vidéo na ma ñu ngee liggéeyaat une heure du matin dama ko ko envoyé su guddi gi une heure du matin mu ne ma baax na tey si fajar mu yónnee ma message ne dina ma convoqué am ndaje ñu toogaat ñu wax maa ngi dëgg ndax nag ñun lamu si mën a doon ñu neewoon fi administration na doon këyit ñu ne état moo jël décision bi ba boobaa nag ka apprécier nga apprécier ka ni mu la neexee waaye xam nañ ne këyit la ko état joxe waaye si nii nii nii nii rek déedéet nag mu ngi bëgg yàgg mu ngi bëgg bëri te nag gënul nag ñun bëgguñu benn fitna yéene ñu ko kenn. nii boor bii nii boor baa nii kenn waaye nag am na laa xam ne fi maa tëje fi contexte bi toll tey réew mi neexul ndakaaru neexul contexte bi kasaa dox dox si jàmm ñun fii lañu am amuñu lépp ndakaaru kon ka fay oote jàmm tax ñu saa fekk ñun ñun duñu xamba duñu yàq duñu teg fitna kenn ñun ñoo xajoo ñëpp bal ñun ñoo oote ndakaaru li ñu nangu ñun xajoo ñëpp ah dew ma feneen waaye dina jafe nga gis keneen kase ka xajoo lii waa ndakaaru xajoo ndakaaroo gën a xat si région yi te ñoo gën a metti ni ñoo dëkkee mais ba tey kenn onkul kenn onkul ñu ngee sant ñëpp jaraaf kontaan nañ si taxawaay bi ñu ngi leen a ñaan leen sa man si dox si si jàmm dellu si ngeen doxal ñu ko ñu continuer liñ commencé woon moo la waxtaan bi ndax lépp si waxtaan laa mujj tey bañ fi doon sànni tey xeer ak teer lacrymogène ba suba itam dañoo ootewaat waxtaan rek kon ñu njëkk ka moo gën ñu oote waxtaan ndax lépp gi nag yéen ñu ilif yéen ilif cap loolu moom loolu la yàlla dogal le président la république ni mu jiite administration noonu la nekkee garant coutume bi ak patrimoine matériel immatériel réew mi moom itam moo war a sàmm cosaan ak aaday réew mi ni mu nekkee chef suprême des armées fii am na ka ko wax sànq patrimoine immatériel am dëkk bi la aremaam Tamsir daa am lu mu signifié si waa Ngor wax na ko gouverneur nee na ko Ngor dëkkab cosaan la nag fii moo nekkoon buntab dëkk bi juñu doy na borom xel fee nekkoon buntab dëkk bi man yof la ma daan yendu si kuri gi la ma daan jànge defe naa marqué bokkab sëriñ sa kuri ga lañ daan jàngee xam nañ kuri gi li mu doon si yof baa demee Njaay Njaay Fatick fële Mindis Njaay fii ñu kaa defalee euh, kii bi euh, xoy bi fi ñu kaa defee kenn ñemoo faa teg birig kenn ñemeñu ko fii daa am la moo tekki si ñun enracinement ouverture bi Senghor la wax si lépp bugg la njëkk ñu cosaanax ñu aada d'abord poste bañ mën a am ndoom ak tànk gañ mën a am ñu cosaanax ñu aada ñu ko gënal heureusement nag bañ nekk si réew ma dal si réew ma jàmm ñu la ñaan ñëpp ñu suuxat loolu la invité le chef de l'État moom mi nga xam ne discours am le 3 avril bi moo clôturé moom moo oote au dialogue ne bëgg na ñëpp waxtaanaat bëgg na ñëpp dellusi ñu di ko ñaan ñaan administration bi yëpp ñu jël loolu jiital ko. ñu woote jàmm ndax jàmm si la lépp a xaj. bii de jaraaf li ñu bëgg. na dellu si ñu am na ci soxla de. état lan laa décidé dañu kaa jox ñun. da kaa jox gendarmerie dañoo jox parti jox leen parti dasaa lii dasaa laa nañu waxtaanee lépp ñu teg. ñu xam ne intérêt yu ngor ngi intere yi kële nga di intérêt waaye ñun ñu intérêt ñun jàpp nañu ñun ñu intérêt li ñu xam suñu dëkk ñun. jox ko keneen bàyyi waa Ngor ah état moo la décidé nag nous sommes dans une république c' est l' état waaye nag si population yi la état bi la liggéey comme ñu ni fi nekkee pour état bi. donc population autochtone yi Ngor yi ka leen si gën a yàlla amul. ba dee état ko moom commune de Ngor ka gën a doon représentant état fii amul. ba dee soxla nguur gi bëgg jeunesse bi jóg taxaw ab jeunesse jox ko la ëpp xam-xam amul kon nañ góorgóorluwaat te ressaisiru wax ne gendarmerie ñun xam nañ génie militaire bi seen xam-xam ke leen joxoon île de Ngor si biir géej ñu tabax fa am nañ xam-xam bi am nañ moyen am nañ matériel bi bañ focaliser fixé fenn rek sañ nañ ko nag waaye ñun itam sañ nañoo demande lii ñoo def ni ñu ngi leen a ñaan si njëkk ak teraanga na dal ndax ñun ñëpp administration ñu ngi sant ñëpp ñu ngi gërëm ñëpp jaraaf kontaan nañu ba baax